woon seet si woon xalifa bi mooy sëriñ taxa li aju ci wàllu weer wi séentu weer fii ci Sénégal pour les on concerne jullit ñi wàllu korité wàllu tabaski loolu defe naa ne euh, looloo taxoon tey ñu ñëwoon fii Touba jël sunuy kàddu euh, jox ko sëriñ mun Muntaxa comme niñ koy joxee xalifa yëpp wan leen ñun seen i seen ndaw lañu ñoom lañuy ñuy ñoom ñooy bu weer feeñee ñoom ñooy yëgle loolu tey moo doon sunu tànk fii tey ñu ñëwoon Touba. àndoon ak sunuy kilifa Cherif mu ngi nii docteur Ismaïl Dem ak mbooloo mi ñu àndal ak docteur Bouchra Dieye euh, su ko defee ñu ñëw fii tey ci sëriñ euh, kër sëriñ taxa gannaaw boobu ñu recevoir ba noppi ci li ñuy ñëw pour jottali kàddu yi. li ñu gëm mooy fii mooy sànnikaay boo xam ne ku fi sànni ah, ah, boo jamee gañe nga moo tax ñu ñëw fii bi ñëwee nag moo tax gaañi mën a leen bi ñëwee ba ci sëñ may leen gaañi sëñ baa ngi nii. yéen a ngi nii maa ngi nii sëñ bet Bouchra wax naag moom wax wax ju yàgg a yàgg wax na askanam ak ni mu bokk ci dëkk bi ak ni mu bokk kilifa yi diine yëpp ah ba noppi mat ko sëkk di doctorat ah di am xam-xam ànd ak délégué ñii ñëpp ay borom xam-xam lañu Chérif ma macha allah sëñ sëñ bi recevoir na ko ah, te niñ baaxoo di doxeek sax kilifa ku waxee rasulullaay mooy maamam ah, moom xam na ci dara ñun ñëpp xam nañ ci dara. fa tabaarakallaahu kon daanaka waxtaan wu jërul guddal li amoon solo mooy gis nañ sëñ bi ñaanal nañu ànd naag nun ci lu ñu ne te comme na nga xamante ni noonu la ko sëriñ Saaliw defe woon ak kilifa yu baax yi nga xamante ni ñoom la wutu woon ak maam Alaaji a Asiis Si ndax ñoom xam ngeen ne ñoom seen mbir saa su ne dañoo fonk trois mooy luñ fi fekk luñ fi fekkoon luñ fi fekk lu ne dañ koy gën a dëgëral gën koo jëm ca kan jëm jëmale ca kanam dañuy yokk waaye duñ wàññi ci loola dara kuréel gi mooy commission nationale de concertation sur le croissant lunaire kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy saytu weer wi waaw te léegi ma nekk coordonnateur général bi gannaaw bi iyaan gaañoo nem si yàlla si man maa toppoon ci moom man maa nekkoon secrétaire permanent ci récépissé bi bi mu gaañoo man maa amoon sañ-sañ pour woote euh, euh, assemblée général ñu woote ko macha allah ñëpp ñëw membre yi ñu daal euh, fal bureau macha allah am na commissaire au compte am na compte am na trésorier am na chargé de de l' organisation am na secrétaire permanent lépp daal am na ko waaw mu nekk structure bu jaar yoon bu jub waaw kon nag euh, macha allah euh, ñu ngi ñaan ñépp daal di jàpp ci xam ne loolu daal seen jëf la sëriñ bi ñaanal nañu suñu xel dal na macha allah. am ay jafe-jafe loo gis day am jafe-jafe waaye bii yoon dañ ko organiser noo xam ne këru diine ñëw nañu association yi ñëw nañu danañu coordonner suñu biir incha allah. ba am ay information yu leer yu wóor ci weer wi su ñëwee ñu jox ko ñi ñu ko war a jox addina bi yëpp yëg ko macha allah am nañ yaakaar ne bi yoon euh, maanaam wuute euh, wuute nag mënut a ñàkk waaye daal li ëpp daal ñu nekk ci li nga xam ne mooy mooy yoon daal. ñëw ziyaara suñu wayjur suñu xalifa sëñ Muntaxa Bachir mi nga xam ne tey moo fi taxaw lislaam taxaw bu wér lépp lu yëngatu fii ci réew mi mu taxaw ak Pastef def ci ñaanam def ci doolam def ci kaddam du sonn loolu nag bu fekkee taxaw nañu bëgg taxawal lii fokk ñu ñëw wane ko liggéey bi liggéeyam la ay ndawam lañu ñu ngi koy liggéeyal incha allah kontaan na ci ñaan na ci incha allah suñu yéen rek mooy tawxiidu kalimati lmuslimin wa tawxiidu sufufihim boole baatu lislaam mu nekk benn baat kaddu lislaam mu nekk benn kadd ñun ñëpp ñu nekk benn jëmme benn ruux benn eh, xol benn jëmukaay fii ci Sénégal. Sëñ Muntaxa ñaanal nañu ci jàmm ak salaam te jàpp nañ ne rek incha allahu rabbi commission bi nam mi ni muy doxee ni incha allahu rabbi danañ ci boole bépp jullit bépp kilifa diine bépp këru diine incha allah rabbi ba mën ko doxal ci jàmm ak salaam euh, imaam Bousra Dieye moo ko jiite euh, délégation bi ak Chérif Maki dara ak Taïb soose ak macha allah euh, imaam Ismaïla Dem donc looloo nekkoon solo yu bés bi tey gannaaw bu ñu gisee sëñ Muntaxa ñu ñaan yàlla ñaanam yim ñaan yim ñu ñaanal suñu borom defal ñu ko ba tawfeex ak taysiir topp ci ba nga xam ne lépp luñ ci séntu rek ci ci lu baax suñu borom defal ñu lu kayo suñu njortu bi jaay nabi Moustapha sallallahu taala alayhi wa sallam. Nous sommes euh, venus rendre visite euh, au khalife général. Cheikh Mohamed Muntaka Mbaké, aujourd'hui accompagné, enfin dirigé par le coordonnateur général, le docteur Bouchradier, cette délégation a eu à entretenir donc avec euh, euh, le calife qui a prié pour le nouveau bureau élu et qui a eu sa bénédiction. Donc euh, nous en sommes très réconfortés et nous remercions le calife et tous les, et les chefs religieux euh, de Touba pour cet accueil si chaleureux, cette générosité euh, légendaire euh, qui est toujours euh, euh, habituelle à, au, à Touba. Cela ne nous surprend pas. Donc euh, nous sortons aujourd'hui de cette audience très satisfaits euh, des recommandations et des conseils du euh, Khalif général.